kawteef bu doy waax la ñu nemmeeku ca diwaanu Linguère mu ñeel nag mbirum càcc gu metti goo xamante ni nag doon nañ ko amal ca boutique boobee nekkee ca diwaanu Linguère li gën a waax ci mbir mi nag mooy kii nga xamante ne moo doon amal bile càcc dañu ko xam lool fii ci diwaanu Sénégal daal koy ràññee nekkul kenn nag ku dul tiktoker bi nga xamante ne moom mooy Sambaka ñu gën ko xam nag ci rang muy gaaw moom Sambaka mii la ñu ko nag ci vidéo yi nga xamante ne nag doon na ko faral di def ci tiktok bi moom mi la nag nee nañu moo amal bi la ñawteef ca dëkk boobee nga xamante ne moom mooy diwaanu Linguère bu ñu sukkandikoo ci xibaar yi nga xamante ne nag jot nañu ko nee ñu nag dafa dugg ca boutique ba doon amal ak càcc ca jamono boobee nag caméra de surveillance yi nga xamante ne defoon nañ ko ca bërëb boobee filmer ko muy amal nag biile euh, càcc ca gannaaw ba nag ñoom moom boutique ba taal li nga xamante ne moom mooy seeni i caméra de surveillance kanamu ko sàmbaka gi nag ni tay yi ca vidéo yooyu ñu daal di koy gis nag ba ñu ko gisee la ko jël nag daal di koy jébbal yoon jamono ji ji ñu wax ak yéen nag Samba Ka mu ngi ci kaso bi mu nekk nag lu doy waar loo xamante ni nag daanay am ca diwaanu Linguère mbir moomee nag daal di bétti ñëpp fi nga xamante ni moom mooy ci diwaanu Sénégal ndaxte jamono ji ñuy wax ak yéen nag vidéo yi ñu ngi koy wasaare ci biir réseaux sociaux yi du ñàkk nag dañu am yenn ni xibaar laale nag ak mbiri tiktoker bi nga xamante ni moom mooy Samba Ka wiyaɓe jowa yo allah kum sutor wi noon hanana ma ar wuro ma janga jaam ma ɗo kam okkimi gaari okkimi kaalisi mi weɗanoma uñaa jeegom tawi wona goo mbiya wona goo wadde abdou djuba neldal ma yettima ngal mbenɗam yomi weɗ yim wuro mi weɗi ɗumen uññaji jeegom ɓe coodi hen koɓe cafa wadde abdou djuba gacce ngaalam yo jaggiran yo allah yo allah hokkuma sutoro yo allah juhnu balɗe ma ran hen ɗum okki ngaari ran hen wona ñaarel buuru kiram hen miso ran lobbudu ran duka sow lewe ran mamar ran suadu soh ran siddaji soh ran umarel soh ran lobbudu ran lobbudu ran hammed soh bamba so hammed bamba so rang galel bamba so rang duga bamba so rang mamar suad so rang jalwa suad so rang hammed suad rang siddati suad rang rang jalla rang rang ñoo def ni rang moo daje foofu abdou rang mu yëkkiti yëkk maayam rang jox paas rang muy majji majji di naan attaaj bi rang rang rang rang lobbu rang